dafa ñëw ci jamono bu doy waar. Uh-huh. yàlla ni ko. Uh-huh. balaa ngaa waar kenn waaral say mbokk ba pare. la wax yonent bi. waaw da koo ñàkk kersa foofu <laughs> balaa nga naan naam ne fa. <laughs> wa anzir ashirataka al aqrabin. allahu akbar. balaa ngaa waar jàmbur yi. Uh-huh. am na ñu bokk ak yow jege la. tegooguñ ci yoon. nanga nga waar ñooñu ba ñu tegu ci yoon. koy waar nga door koo waar. ca saase rek sama sëriñ Seydil Hadji Malick. nee na allahu nee na. yonent bi dafa dajale ay bàjjanam. woo leen ba nu ñëw mu ne leen yàllaa ma yónni mhm. kaay leen ngeen jaamu yàlla te fegal seen bopp safara amaatuhu xul na fatlub lil jamii wala tadcu aba lahabin zal xiqdi wal kazami loolu la mhm. Seydil Hadji bind ca xilaasu zaab ah moom la tubaab bi toppandoo naam on n'est jamais prophète chez soi waaw tubaab bi ñoo mën a toppandoo nag on n'est jamais prophète chez soi namoon ngeen ma nag ñàkk feeñ ci télé bi sama ñàkk feeñ dafa wóor. <laughs> yaa ngi dégg Pape yonent bi woo ay mbokkam. Eh. ni leen bàyyi leen caaxaan yi ngeen nekk. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. te wéetal yàlla. Mm-hmm. mal yàlla te topp ma te xam ni man la yàlla yónnee. yaa ngi dégg. Abu Lahab ni ko tabbat lak ah mu indi tabbat ya daa baat. waaw Abu Lahab waaw loolu dafa neex. tabbat yadaa abu lahabi te dégg naa loolu mooy tontu bi waaye namoon ngeen ma waaye sama ñàkk ñëw wóorul yaa ngi dégg Pape yonent bi dafa wax ba àggal abu lahab ni ko tabbat lakk yàlla tontul ko toskere ñeel na la allahu ali alihaza jamaatana waaw waaw yow lii moo tax nga di ñu fi dajale ay magum jëmm bàyyi seen xëy bàyyi seen gont nga woo leen ban ñëw nga naan leen yàllaa la yónni te yow nga juddu ci sunu kanam di doomu Abdalaay ak Amina Abdu Muttalib di sa maam ñu xam sa askan judd lu la nga juddu ci sunu kanam xëy taxaw ni yàlla la yónni tabbat la ko Muhammad lu ko yàlla tontu yàlla ni ko comme baatu tabbat la utiliser bàyyil man tam ma jël tabbat kon tabbat yadaa abi lahabin wa tabba eh waay maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasaba allahu akbar sa yaslaa naaran zaata lahabin waaw waaw yaa ngi dégg yàlla pare ci Abu Lahab tegee ko ne dugal ci histoire bi soxnaam. jabar ji waaw dégg naa ne ko cee boole kii moo mun a defante nag <laughs> yàlla moo mun a defante. wam raatu am ci munoon na am ci Abu Lahab bi. mais gis nga mais da ko koo faraj faraj ba pare <laughs> ne ko pare naa ci yow indi sa jabar daal di àggali man musuma gis lii. <laughs> xam nga jabar ji tudd. Ah. Ummu Jamil Ummu Jamil Seydi Jamil ñu ngi lay ziar bu baax. sama sëriñ <laughs> si Malick mu mujj bi <laughs> xam naa ni xam naa xam naa umu xam nga umu jamil nag mooy jamil <laughs> wallahi umu jamil man may Abu Fadel yaa ngi dégg Pape waaw macha allah mu teg ci jabar ji mu boole ca soxnaam soosu umu jamil ni ko wamraatuhu xamalatal xatab yàlla même sa soxna ëllëg ci mattu safara yi lay bokk. allahu akbar. ndax ñàkk teggin gi nga wan yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ah rek xam naa loolu parce que nag Ummu Jamil aussi waa ba jibale woon dégg naa won na lu ne yonent bi ci borom xam-xam yi laa ko jàngee. mais Pape Ummu Jamil mooy ki gënoon a fatt yonent bi. sàtt baaraam baaraam ni sàtt dégg naa lakkaloon yonent bi comme pas possible. xam nga benn bis nu mu def. maxaat. bàyyi ba Seydina Muhammad di génn di dem ca jàkka ja alaaji pap ummu jëmil gas pax mhm. façon pax yooyu nga xam ne dafa mel ni fas yooyu ah, maanaam pax yi ñuy jaara raakool yi pax mu gudd la ummu jëmil gas lu ndëgg sërëx jël ay sër moom lañu tuddee ndëgg sërëx jël ay sër teg ko ci kaw pax mi jël suuf teg ci mel ni ku ko suul te suulu ko ay yow jamil mii di pour ummu <laughs> jamil la bon atax ba tabat ya daa wàccee pour yàlla mi pànk defante na ak ñoom pour bu rasulullahi di dem ca jàkka ja sallallahu alayhi jaar ci pax mi daanu piège la piège la ndëgg sërëx mais xam nga yàlla dana yonent bi bàyyil ma surveiller terrain bi mhm. piège bu ñu mën a tëral mhm. mën a saxal ko mhm. waxoon naa la aaya bi wa is yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yamkuruuna aw yó kuruna kuruna boobu mu ngi sama xel ba tey la yamkuruuna <laughs> kuruna kuruna wayam kuruna looloo neex wayam kurullahu wallahu xayrul makirin yàlla nee na sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu mën a tëral mu jëm si ci yow danaa ko échegal man yàlla parce que man yàlla yaa ñor yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu dama bëgg nga def ci parenthèse aaya boobu borom xam yi dañ koy utiliser pour ñaanal ci nit waaw parce que dégg naa aaya aaya aaya aar la. prothèse la. waaw ah, man sama daf koy tari. yenn saa ma dem ca këram gi rek ma ko joxee fukki junni. <laughs> xool ba sedd ba mun na ma layam korona korona korona ma ne ko ah lii nga may ñaanale amul problème borom xam-xam yi dañu koy utiliser pour di ci ñaanal. nit waaw pour kaaraange alaaji Pape pour kaaraange pour dañ koy dañ koy def souvent pour prothèse. macha allah mais Pape. Mm. na Muhammad mm-hmm. yàlla daf ko bëgg. Mm-hmm. ba boo ko laalee. Mm-hmm. bu doon yàlla am na xol ci misaal. da nga naan laal xolam. yàlla dafa bëgg yonent bi alaaji Pape. sallallahu alayhi wa sallam. ba amul ci moom sago. Hmm. moo tax ku mas a teg yonent bi lu teguwul rek. Hmm. yàlla réagir moo tax mu boole Abu Lahab ak Ummu Jamil jabat ji. ci benn saar. Ah, waaw nga ñeel na la yow Abu Lahab. Hmm. sa yàgg sa soxna ëllëg danaa leen yóbbu safara. ñu couplé noonu. te bu ma leen di dugal safara buum laay jël takk seeni loos. dégg naa ñu ñaawoon lañu. <laughs>